Dans mon urgence à l'hôpital principal c'est là que j'ai couru ma l'urgence. urgence je tourne de l'autre côté je vois que toog si chaise la tête inclinée deret bi nekk ci un peu conseillé, parler moins j'ai des fois on est un, gis nga ma def dis nga ma ma def ma calme-toi calme-toi moi je suis là j'ai pris un mouchoir combien je l'ai nettoyé, j'ai nettoyé, j'ai nettoyé. J'ai dit, ils sont t-shirt, euh, pour mon coquille, euh, le médecin, il faut le ciseaux me déchirer. Il était fatigué, j'ai nettoyé, j'ai vu ñu ñaw front bi, ñaw si bopp bi ñu teg col col bi sax ñuy dañ ma ne ñu teg col bi. t-shirt baa nga fa, deret bi dafa collé, ni laa d'on def la. ma fomp ma jël mouchoir bi côté bu la voix il vient police je avec son nom comme ça moi je vous voir le médecin nous ne non il retourne yéen la police Allons, ko ci je ne sens pas mon cou je ne sens pas mon cou depuis l'hôpital j'ai demandé l'appareil pour mon cou je ne sens pas mon cou je ne sens pas les pieds je vous ai demandé l'appareil vous me négligez rek man ma daal di génnee sama frotté ma frotté baat bi mu ne oh oh ma frotté main droite bi main gauche bi les doigts les les les pieds baaraam yi et tout et tout ma frotté ko yëpp mu teg bopp ma ne leen kii il souffre ba mu urgence à l'hôpital principal c'est là que j'ai couru ma daw urgence je tourne de l'autre côté je vois que toog si chaise roulante la tête inclinée deret bi nekk ci moom un peu conscient par parler moins j'ai des fois mu ne ah gis na lu ma def gis na lu ma def gis na lu ma def Mon ne calme-toi yàlla rek ma ne calme-toi moi je suis là j'ai pris un mouchoir écoute bien je l'ai nettoyé j'ai nettoyé j'ai nettoyé j'ai dit et son t-shirt ñu euh, pour mon coquille, ko euh, le médecin xam naa dafa jël ciseau mu déchiré ko am il était fatigué j'ai nettoyé j'ai vu ñu ñaw front

je ne sens pas mon cou, je ne sens pas mon cou. Depuis l'hôpital, j'ai demandé l'appareil pour mon cou. Je ne sens pas mon cou, je ne sens pas les pieds. Je vous ai demandé l'appareil. Vous me négligez. rek mon ma daal di ça sama frotté Mon frotté bat bi mu ne oh oh ma frotté main droite bi main gauche bi les doigts les les les pieds baaraam et tout et tout Mon frotté ko yëpp mu teg bopp il souffre kon euh, soxna si nga xam ne moom lañ doon déglu sànq euh, di Clémentine Coly mi nga xam ne mooy euh, soxna su François Mancabou mi nga xam ne moom la ñuy waxtaanee ay mbiram te ñu xëy dégré ne ñàkk na bakkanam ginnaaw bañ ko yóbboo interné ko ci hôpital principal bu Ndakaaru un premier commentaire peut-être ku ci am abi rapidement peut-être kàddu yu yu yu daw yaram la également. oui mais femme bi sax dafa am sérénité ak ngëm. Mhm.

cër jox ko gëdd wala xadd karam naa banni aadama c'est-à-dire nan lañ mën a jëlee nit ñu téye la biñ lay téye yaa ngi am sa conscience sa lépp pour man waroo ragal sax dem ci yoon mm-hmm. au contraire man buñ ma waxee dañ maa jiin nangam mais damay dem ak xel bu dal ak sérénité buñ ma laajee ma tontu c'est mm-hmm. mais bu fekkee yii am na ci après le procureur il va sortir pour ñu defal ñu benn genre euh, scénario wala lavage de cerveau wala nëpp nëppal il faut que ça arrête c'est-à-dire pour man Euh, deru police mënu ci set Hmm. D'ailleurs, administration pénitentiaire même parce que tu sais le la jaar. pas administration pénitentiaire mais police. mais parce qu'il n'était pas sous mandat de dépôt. au moment où nous la ah. a waxee ni dafa am Japon dafa pathologie grave après. ñu ah, bah je donne l'exemple ñu ah. ce petit pays Sénégal nga fait crime il faut qu'on arrête de se jouer de nous. il faut qu'on arrête de jouer sur la vie des Sénégalais c'est-à-dire dañu nous ba banaliser moi je le dis 2021 euh, ci ay manifestation am nañu décédé nañ ko leeral ñu xam décès yooyu fan la jógee. fan yee ñu génn rek tam am nañu ci ñak bakkar wa mais ba tey duñ ci wax. Mhm. duñ ci wax après nak ñu continuer euh, la vie continue après demain on va continuer à faire comme ça boy ñu japon ci affaire 23 juin te de dëkk c'était cinq ou 7 oui mais après ñu dóor len ci kaso 20 ans mais après c'est seen avocat si procédure monte eh, joxé ni torture mais ben booy bi ndekete ci ay awram lañ ko doon maas ñan ñoko def. waaw léegi nag mënuñu nekk ci dëkk boo xamante ni. d' accord bakkan mën na faatu te du mujj fenn. Hmm. looy lii nag solution la occasion la pour que ñu régler ces questions une bonne fois. une bonne fois impunité bañ a jeex. d' accord euh, Alioune Badara da nga ciy bëgg a wax rek. Hmm. lii yëpp li ko andi. Hmm. mooy une manifestation bu ñu autorisé manifestation yàgg na am Sénégal ñu encadré ko. bal mais bi bi ni li ñu c'était en marge de la manifestation. mais c'était bon bon euh, peut être que le lien après c'est une manifestation peut être coïncider woon na rek. ñu si si si si si jamono boobu. Mm-hmm. mais suñu autoriser une manifestation bi a dañuy ñëw aussi manifestation bi la preuve le huit def nañ ko. Mm-hmm. ñu ñëw def suñu manifestation dem suñu yoon. Macky Sall li may wax place bi de manière très civique. dooga ñibbi président Macky Sall na delluwaat 2012 mu xoolaat état bi ñu nekkoon 2012 la ñuy delloowaat dix ans plus tard loolu c'est malheureux pour une république qui se dit en marche ñun dañu bëgg jëm kanam Sénégal te ñi ñu mën a jàppale nag mooy suñu njit mhm. donc on fait appel à eux quand même ñu def preuve de hauteur si yenn mbir yi pour ñu mën a de sérénité ñu mën a di am une respiration démocratique boo xam ni amul sax citoyen bu am lu muy toog di ko tij parce les citoyens les citoyens aussi ont des fois peur mhm. ñi nga xam ne ñoo dëkk si lieu yi nga xam ne la defee manifestation ils sont toujours dans un état mhm. boo xam ni mais ils sont toujours sous pression réew nag pour mu dox stabilité la laaj jàmm la laaj ak sérénité donc si lool la ñu woo vraiment gouvernement du Sénégal. d'accord pour ñu mën a dem si deux mille. d'accord imam kii mi ngi doon wax nga xutba ci. ci wàllu bakkan ah <laughs> peut-être également euh, rappeler que euh, même détenu même buñ la accusé ci ay mbir c'est des ah ah présomptions donc lépp li war ci yow également ci wareef war wareef ak yelleef dañ ko war a sàmm dañ ko war a respecter waaw waaw comme ni nga ko waxee rek Euh, ñu ngi delluwaat di waxaat ni inna lillahi wa inna ilayhi rajiun euh, di delluwaat rek euh, di masawuwaat famille ak soxnaam aussi mm-hmm. comme ni ko sawaay waxee soxnaam ku dal la te itam ku yàlla may la mu mën a am maanaam dalu mën a expliquer pour que mm-hmm. sénégalais yi nga xamante ne xamuñu mën a mën a mën a jëlee ci mm-hmm. maanaam lan mooy xew-xew bi dëgg-dëgg moom tamit ñu ngi ko koy jàll ñu ngi koy masaw ba pare tamit ñu ngi wax nii dara gënul euh, dara gënul euh, nekk yeete. Mhm. ak xutba. Mhm. xutba du dara lu dul yeete. yeete yeete mhm. léegi nag yeete ci ci ci ci ci maanaam ci diine lislaam euh, lépp loo xamante ni yàlla bëgg na jaam ñu mel ko rek dëgtal na yonent bi yonent bi yeggale na ba ñun ñëpp recevoir nañ message bi ban sax ne waxal ko xamal ko ni ko balaxtu maanaam yeggale ga maanaam matale ga léegi nag lenn moo ci nekk dafa am loo xamante ni ñun ñoo gën a nekk maanaam yërmande gën ko am ni yàlla buur bi ni sàkk moom mm-hmm. parce que moom bu waxee ni ku rey nañ ko rey mm. bu nit reyee ñu jël ko tëj ko kaso kon ñun bëgg nañ gën a ëpp yërmande yàlla te yàlla moo xam li tax mu ne bu bu ñu reyee bu ñu reyee nañ rey bu ñu jamee kenn day la nga jam ay ko ci sa intention ñu jam la ñu di tool mais fii fii xamaguñu kan moo rey bu dee rey am na waaw loolu laa lay expliquer nii dafa am fu ma jëm mhm. léegi su ma waxee loolu bu fekkee nii moom dafa nekk ci ay loxo yu nguur mais ci rek ngay jox observation bi moom tamit ngay jox li ci nekk yëpp moom nga koy jox mhm. léegi moom mooy dem gëstu ba ñu xam ki ko rey ñu si waat ki ko rey def ci moom li war ci moom mhm. foofu laay waxee léegi nag lenn dafa am xam nga bu fekkee ni ñi ngi jël nit par exemple tëj ko ci kasso wala ñu jël ko mettre ko en garde à vue jël nañ ko ci ben quelconque police wala ci ben administration policière ou ki bu mu mënti nek mhm. ñu tek ko fa ñu gis ni ngir que ñu mën ko atté mhm. kon ko kooku nguur ni ko jël

bi mu amee lii ko dal xam nga sa waa ji léegi muy wax. léegi mhm. Cheikh Omar yaa ngi wax léegi ci autopsie. Mhm. c' est très normal. waay mu tamit càmbar xam. affaire bi na la demee waaw moom lan moo ko dal parce que soxna si bi ngi wax ni. Mhm. bopp bi dafa xar. dem na ba deret ji sax dafa dem ba waŋ ci kawam. waaw ba moom bu muy teggi deret ji da ko doon akkati. waay dem na ba nee na maanaam yëgatul loosam. yëgatul loxoom yëgatul tànkam. yëgatul loxoom yëgatul tànkam donc.

dund ak dee. Mhm. kenn du banaliser motif bi nga xamante ne moo ko dal ba tax mu nekk situation yooyu. nañu wax daal la ca am wax léegi. nañ wax li ci am. Mhm. nañ ko topp saytu ko ba mu ba mu leer. ñu mhm. indi ko askan wi xam ko njabootam xam ko. aussi loolu tamit loolu lu ñuy lu ñuy lu la. te ni nit ñi nañ ci bàyyi xel. état bi et plus particulièrement ñi nga xamante ni ñoom lañ dénk justice. nañ ci wax. président Macky Sall tamit. aussi mhm. na wax ci lii nga xamante ni mu ngi am parce que tamit li ñuy wax dëgg la Sénégal léegi dee def fi bari trop mhm. ba pare aussi ni ñu ko waxee dañu dem sax ba dee moom dañ ko jàppee comme maanaam rey kaña wala rey muus mhm. na mu yàlla jéggal te bakkanu doomu aadama foor na foor goo xamante ni képp ku rey doomu aadama ci tayee war ñu ko foowee yàlla li mu xamale mooy moom àjjana moom doo ko seen àjjana doo ko seen te léegi nit ñi dañuy foowee jam dañuy fooyee ray dañuy fooyee leneen ak leneen mm-hmm. Mm-hmm. léegi nag bu ñu demee nag ba suñu maanaam état mm-hmm. mënatul euh, mënatul gérer sécurité nit ñi aw askan bi nekkee y'a problème moom la sama naataango bi léegi wax parce que bu ñu demee ba kii nga wax xamante ni moom moo ñu gouverner moom moo ñu jiite mënatul topp ci li nga xamante ni mooy suñu sécurité problème am na nag ci réew te it du jur jàmm te nag suñu lekk jàmm rek la. Mhm. waaw rek. ndono gi fi ne daal jàmm la mais. Euh, Serigne Serigne Imaam dafa am lu mu. il est responsable de cette situation parce que sécurité réew mi ci loxoom lañ ko teg mhm. donc je pense que nag fi ñu war a actuellement ni Sénégal mooy kumba am ndey kumba amul ndey li fi nekk mu jeex mhm. parce que boo xoolee ñi ñuy mauvais traitement yi ñuy wax ni sànq ba léegi boo xoolee ñi ñu koy def ñëpp mooy ñi nga xamee ni que ànduñu ak ñoom ci wàllum politique donc c'est un fait réel que et vraiment wax nañ ci tab institution judiciaire le président de la république ci loxom parce que manipulation bi dafa dafa euh, justice le conseil supérieur de la magistrature Macky Sall moom moo présider. Mhm. donc ministre de la justice mom moko ko fa teg. donc day yomb ci mom mu am une influence prépondérante ci li nga xam ne que mom moy machine. parce que ñu bëri dañu yaakaar né xëy ci ndigalu président tam la ñu war alors que war nañu mëna atté ci sen teeyu bakkan. waaw voilà c'est ça loolu dafay am manipulation yoy donc daal de toute façon li ñu mën wax ba teunk ko rek moy que justice mhm. soit faite. Mhm. parce que cas bi dañ ko wara éclaircir te dañ ko wara top parce que dina tax ñu yenen ñi nga xamante ni dañ naroon servir d'exemple exemple situation bi donc mu situation ni dañ koy régler une bonne fois pour. urgence à l'hôpital principal c'est là que j'ai couru ma daw urgence. je tourne de l'autre côté je vois que toog si la tête inclinée deret bi nekk ci un peu conseillé par les j'ai des fois mu ne ah gis nga mën ma def gis nga mën ma def gis nga mën ma def ma ne ko waa calme-toi yàlla rek calme-toi moi je suis là j'ai pris un mouchoir.

la il vient fay la police ma avec son état comme ça moi je vais voir le médecin ñu il retourne yéen ñu soxla je yenn nga soxal na carrément ñu ko police allongé ko ci benn fauteuil je ne sens pas mon cou je ne sens pas mon cou depuis l'hôpital j'ai demandé l'appareil pour mon cou je ne sens pas mon cou je ne sens pas les pieds je vous ai demandé l'appareil vous me négligez rek man mu de Guinée, ça sama frotté mu frotté baat bi hors, ne or or frotté main droite bi main gauche bi les doigts les les les pieds arami et tout et tout ma frotté ko yëpp mu tek bop mané ma ki il souffre Dans une urgence à l'hôpital principal c'est là que j'ai couru ma d'urgence. urgence je tourne de l'autre côté je vois que toog si chaise la tête inclinée deret bi nek ci moom un peu conscient il parlait moins j'ai des fois mu ne ah gis nga lu ma def gis na lu ma def gis na lu ma def ma ne ko waa calme-toi yàlla rek ma ne calme-toi moi je suis là j'ai pris un mouchoir écoute bien je l'ai nettoyé j'ai nettoyé j'ai nettoyé j'ai dit et son t-shirt ñu ne ma euh, pour ñu ko kii euh, le médecin xam naa dafa jël ciseau mu déchiré ko il était fatigué j'ai nettoyé j'ai vu ñu ñaw front bi ñaw si bopp bi ñu teg col col bi sax muy dañ ma ñu tek col t-shirt nga fa deret bi dafa collé ni doon def la ma ma jël mouchoir bi la police avec son pas comme ça moi je veux voir le médecin ñu ne il retourne la carrément ñu ko police mais je ne sens pas mon cou je ne sens pas mon cou depuis l'hôpital j'ai demandé l'appareil pour mon cou je ne sens pas mon cou je ne sens pas les pieds je vous ai demandé l'appareil vous me négligez rek mon mu daal Guinée, ça sama frotté ma frotté bat bi mu ne or or ma frotté main droite bi main gauche bi les doigts les les les pieds baaraam et tout et tout ma frotté ko yëpp mu teg bopp ma ne il souffre thank you